faut nga loolu laa koy dama nga teel loolu laa koy dama mii toog laa bëgg nga teel ma loxo yi man maa ko yow la wax ci kan waaye bëri naa nga ma la wax ci nii da ragal Abouma de. barke Cheikh Ahmadou Bamba ragaluma ko. su ma jógee ci Oma yow laay jël su Oma daanee ba pare après yow laay jël. <laughs> da su ma daanee moom d'accord ma bàyyi. bëri da lay daan. su ma daanee ma bàyyi bëri. temps yi day entraîné entraînement oh, trois yoo xam ne nga xam xool ma temps yi ma rek. xool ma la wala miskil la wala graisse. graisse yow mi yaa yor amul géej may lekk bu ki dem laa jógee États-Unis ndànk rek bu ki dem laa jógee États-Unis ndànk rek. foog nga teel moom.